beaucoup de mesures pour bu dee yàlla ko tax ñu wax beaucoup de mesures yi ñu fa annoncé kenn ci ñu nekkoon ci rencontre bi yéeyu ci yàbbi yëkkatiwu ci kàddu hmm. dontale nag waxuma du question yu am solo ci wàllum système bi am na solo lool mais dama ne yu bëre yuñ ci fa yëkkati kenn waxu ko ñun li tax ci li ñu waxoon question décisionnaire yi lu tax boobu mesure bokkul ci mesure yi ñu fësal kon jàpp naa ni dans l'approche dañu war a gën a sincère dans la démarche dañu war a am une posture beaucoup plus républicaine ñu jàpp ni dañu fi teg pour andi saafara ci jafe-jafe jàng ba jàngale bi. d'accord jàngalekat ku bëgg mu am xel mu dal ku bëgg mu ci lu mu nekk mu performant ba élèves yi yëg ko bu mën a sukkali suñu réew na nga fexe ba mu nekk dans un minimum de stabilité psychologique mm. décisionnaire amuñu ko. suñ ko amul ñun duñ ko am en tant que syndicat d'enseignants moo tax dañu yàgg fësal ni fii rek ñu ngi seen i jooy seen seen seen seen boobu noonu ñun ils nous verront toujours à leur côté su fekkente nag loolu la biraam Birama tuddee menace ma nangu ni menace la ñu nekk nag dans la menace et le chantage nous sommes dans la le rappel des préoccupations des enseignants et de l'école d'accord ci préoccupation école yooyu nag ma wax ci on a dit au premier ministre que gouvernement a annoncé huit huit cent quatre-vingt-trois enseignants yu manqué loolu la ministère de l'éducation nationale wax. huit mille. huit mille huit cent quatre-vingt-trois jàngalekat yu manqué. yu manqué xam ne mooy manqué loolu loolu mooy gàpp. xanaa jàngalekat dañoo jël mbëkk mi. 8883. am na ci nag am na ci waaw ñu nekkoon Mauritanie rek Mauritanie rek la seen. am na ñu dem retraite am na ñu fi yàlla jëlee. <laughs> non mais juumoo est-ce que du 800. non 8883 jàngalekat. yow manqué. compte non tenu. de cent in inspecteurs xam nga xam nga inspecteur dafay am ratio boo xam ne ci norme yi norme internationale inspecteur bu nekk cinquante jàngalekat la war la war a la war a encadré mhm. parce que inspecteur da koy encadre tàggat jàngalekat bi mhm. élèves yi aussi ki jàngalekat yi aussi lim bu ñu am bu ñu am ci manqué le suñ ko dugalul dinañ continuer am classe double flux mhm. multigrade double euh, classe euh, euh, double multigrade loolu mënul permettre ñu am qualité système éducatif. kon lu ñu leen wax mooy lan nañu fexe ba yokk limu jàngalekat yi te solution ba nag sorewul concours crème bu ñuy organiser nañu génne résultat yi. muy benn mais jàngalekat yooyu ñu tuddee euh, euh, euh, ñu nekk ci classe passerelle yi te ñu ngi ci système bi ñu ngi jaayanti boobu ba léegi bu ñu leen dugalee ci système bi. ñu yokk jàngale lii bi. mais yéen est-ce que xam ngeen fonction publique est-ce que xam ngeen jàngalekat yi ñoo feesal kon fonction publique. mais c'est normal mais c'est normal non non xoolal xoolal xoolal la la la la la démographie de notre pays les enfants qui sont en âge d'aller à l'école mmh. donc le droit revient à l'état de l'assurer aux enfants loolu nag loolu c'est pas extraordinaire c'est ça la logique mmh. c'est pas extraordinaire bu kenn jàpp ni d'ailleurs jàpp naa ni bokk na ci li tax ñu gën ñoo stigmatiser lii jangale jàngale fi non bu ñu amul lim mot on a plus de cent un mille jàngalekat à ce jour cent cent un mille mais dafa tuuti lool ci lu ñuy xaar ci ci même réew parce que notre pays n'oubliez pas est à dix huit millions d'habitants moom mm-hmm. Birama Sarr il faut pas l'oublier bu ko fàtte ñun dañu jàpp ni dafa war di gën recruter mais Birama ma wax la ci école bi boo duggee ci zone Ranérou dugg ci zone Vélingara wala yeneen zone dañ fa fekk directeur d'école yu dugal loxo seeni poche di jënd craie di jënd ay équerre ay règle pour école ba loolu man maa la ko wax fekkee naa ko du benn du jaar Birama bi nga dem fekk cinq élèves ci benn table ba wala ñu lal basang di jàng sax se passe aussi c'est au Sénégal Birama bi nga dem école boo xam ne bay entrepreneur bi commencé na ko tabax ëpp na vingt ans gis naa ko à Sinthioukoundara dans le gara gis naa ko daan le Goudomp loolu lépp loolu de non dama ne loolu école bi vingt ans bañ ko tàmbalee tabax ba léegi vingt ans j'ai dit la classe. te livré wuñu ko. ba léegi gisuñu entrepreneur léegi ana système bi ñu wax ni moom la ñuy toppatoo ana ñi ko sénégalais yi dénk moo tax dama jàpp ni suñu amul xel bu mel ni système éducatif moom moo yore Sénégal suñu amul volonté politique ak planification ak une école autonome indépendante purement sénégalaise des sénégalais au Sénégal pour les sénégalais. dina doy waar lool lool. dina doy waar lool. <coughs> dina doy waar ndax 7000 7000 milliards yi moom boo defoon nag ci jàng mi la nar war nañ ko mën a yëg ci école bi. muy ci jàngalekat yi te may may may may fësal di wax ni année bi de ñun bu ñu sañoon ñuy politique daañu politique fee ñu bàyyi école bi waaye ñu nit li ci école bi ci jafe-jafe dañ ko seetaan de te bokk na ci yooyu jafe-jafe mooy la ma wax sànq rek. la question des décisionnaires elle reste une question centrale sur laquelle on ne négocie pas